benn problème insécurité boo xamante ni mi ngi ràññee ci dëkk bi depuis seen arrivée encore démb ñu gis benn cas boo xamante ni dafa jëm ci wàllu ñi nga xamante ni mooy jakartaamaan yi par rapport ak benn récidive de la justice ki nga xamante ni mi ngi jógee ci kaso daal di koy agressé ba noppi sénégalais yi ñoo ko fajal seen bopp moom ñu taal ko vif ñu jógee fofu gis une série d' yo xamanteni amad na demb fofu ci euh, Diourbel avec 9 morts ben bo xamanteni ni faatu na foofu ca Kaolack avec des séries d'accidents avec le ministre ak insécurité bi nga xamanteni mi ngi ràññee jusqu'à présent gisunu premier ministre yi ci gisunu président de la République def ci sax muy tweet tay silence bobu ak pat pataaral bobu ci sen échec ci côté sécurité. waaw loolu mooy avat avat d' échec loolu gis nga gis nga gis nga cas d'accident yi man dama yaakaaroon ni Malik Ndiaye mom yalla ko not natt mhm. dafa yekkoon euh, Mansour Faye lu ne si accident yi yalla ñëw rek mom accident yi commencé té yalla na fi dak dafa am euh, yene politique yoy yo xamné ñom dañ pour man si ñom la ko doon xaar il faut que ñu développer des voies ferrées parce que amna digënté yo xamné bu ñu bëggé wañi accident yi man j'apporte des solutions parce que ñi ñi bu ñu leen toppee deug deug deug dëgg fi ñu jëm du baax même l'insécurité où est le où est le ministre de l'intérieur Mon mon jàll laaj mi ngi ni le bilan du département au moins de 4 mois 82 morts Alors ministre de l'intérieur ana ana ana tey ji ñor protection civile ak yooyu yëpp doo gis kenn ñoo xoolal le ministre moom en deux trois mu jël benn casque itam dem. du loolu il faut trouver des solutions man dama ne la solution yi gis nga Sénégalais. mais ñu ngi trouver solution il y a des discours arrogants il y a de l'insolence il y a des xam à travers la population ñu ñoom Ablaye Ndiaye ragalon ñom ragaluñu ñuko dañ koy appliquer xam nga ñun. xam nga ñun. voici les solutions yu muy proposer ñi mu mun ñu ñu Ah, nee nañ da ragaloon xam nga tam ñoom jël décision par la force day dàkk te chaque fois su ni yàlla moo leen di wuyu foofu accident amaat waaw gis xam nga xam nga parfois di nga gis parce que bi muy wax loolu c'était à mu amul lu nekk mhm. échec rek xam nga tey jii bu fekkee da nga jël réew ngay xale mhm. yow da nekk si jàng ñu jox la réew ñoom da ñoom dañ leen jox réew ba pare ñu ne ñoom dañuy jàng mhm. ñooñ nag bu ñuy jàng bu ñu bëggee tari jékki-jékki ne ñoom fi professeur ba toll foofu lañ bëgg a conséquences yaa ngi d'accord les solutions mooy problème sécurité insécurité dafa commencé waat poser. li tax muy peser parce que bu jeunes yi ba amatuñu liggéey di yaay ne taaba marché bi am mais dañuy obligé à des métiers waxati bu yow da nga si mi plan ni lay def pour industrialiser le Sénégal secteur ni la koy defee ni laay ni lay ubbee luñ ñu koy waxte ni lay defee ay réformes ci conditions yi pour permettre entrepreneurs pour permettre les Sénégalais yu don un champion ak code des marchés ñu mën a engagé Sénégal lu muy ñëk moy ay jeunes yo xamné ne dañuy tok longueur du journée mais bu guddi jotee amuñu luñu def lu ñuy obligé dem nekk ay agresseur boo ko waxee ñu né ki da leen di insister léegi police ba lu mu leen di mën a léegi dem nag sénégalais yoy nak nga xamné ñom ñom ñom mer nak dañuy obligé réagir seen euh, def euh, euh, réaction sen bok bu ñu réagir nag mooy indi conséquence bi am Thiès dem taal léegi nak réew mu mel non nak buñ fa tolloo moy dafa laaj nak ñu jóg wax ak autorité yi wax ak autorité yi mooy du yéen lañ réew mi yéen ko mom parce que discours arrogance yooyu ngay wax. non sat kii sécurité bi police ñëw police ñëw ci incident. non moom laa la police daw. police daw bàyyi ñooñu ñu taal nit ki pare ñu soog a ñëw pour indi renfort. waaw waaw xam nga tax xam nga tax ma wax la loolu xam nga tax ma ne dëkk bu ñu demee ba dëkk àgg foofu. parce que bu leen fàttali nag gars yi ñoom ñoo leen jàngaloon xeex de. gars yi leen jàngaloon xeex de. waaw gars yi leen jàngaloon wàcc. ñoo leen jàngal gars yi leen doon wax naan sama bakkan nag suñu suñu bakkan. ñoo leen jàngal pënd ak seen ñoo leen jàngal pënd de. looloo tax nag ma ne réaction yoo xam ne buñ ci tolloo nag dafay laaj ndëpp national ndëpp bi nag. boroomi xel ñoo koy def waaye bu fekkee ne ay ay ñoo xam ne nan ma baal parce que man dafa am yoo xam ne dama koy dégg ci réew mi kees gi amul xaalis man dama naan toujours est-ce que ce sont pas les têtes de l'État qui sont vides non mais ne woon nañ la suñ manifestation amee ngeen toj kër waa APR waaw moom laa la wax xam nga ay milliards fa nekk suñu fekkul ci état bi xaalis pour ñoom non mais état nag xam nga en terme d'état xam nga man bi ñu waxee loolu laa ne mhm.

étape dama mujj ne ko dinaa la tontu fenn mané ko bu fekké né réew en ruine lañ la la bayil kon dé BRT bi du daw. Hmm. té BRT bi en terme de ressources lu muy apporté par jour yéen ko wax. Hmm. bu fekké né lol terre bi du daw. Hmm. bu fekké né les infrastructures man bu may ñibbi de corniche yu Guédiawaye bi lay jël. kon lol du fi nekk. pont yi ñu def ci kii bi ak pont sénégal bi. kon yoy yeb nga xamné Sénégal ak Gambie ñoo comme pont Ndar bi ak rénovation yu ñu def yeb ak yow auto yi ngay dugg muy 4 4 yi bu fekké né en ruine la nekk kon tay ji

dafa am yu bari gouvernement comment faire l'économie des choses pour permettre à ces jeunes ñu trouver fu ñu Donc, ndax dëkk taux d'agression parce que nit ñi amuñu activité si bu féké né réew activité bi secteur yëpp dina wat agression yi nga daan barbarie motax mo wax leen ne leen ñoom dañoo irrité benn dëkk boo xam ne li leen ci laaj laaj ñu leen di menacer ay hommes d'affaires laaj ñu leen di menacer ay presse li leen laaj mooy fait des réformes mmh. permettre à ces à ces vaillants patron de presse à ces entrepreneurs yoo xam ne dañ ciy am ñu leen di état bi di leen di accompagner par des financements ñu mën a ñu ñu mën a créer des emplois mais bu fekkee da ngay ñëw fépp nga nga touché ko fii lay mujjee te xam affaire fu mu jëm si kaw la jëm de ci kaw ça jëm waral euh, tant que le premier ministre deful DPGM dëkk bi dina am ay ça je vous le dis. d'accord bu nit ñi xamul fu ñu jëm ñom hmm. man yu bari ci sori ñi ngi wax opposition rek dañoo parce que bu que ne yow vision vous fi hmm. le plan Sénégal émergent Nous wax ci ba

xam nga xam nga ba luy retarder ñun ak banque mondiale ak financement yi ñu war a am si loolu si la bokk. parce que bu ñu amul orientation budgétaire. parce que dañ ko bloqué woon juin la waroon commencé. day am ay retard. te et puis ñoom ñu ngi exécuter mhm. franchement parlé amul ay loi de finances rectificative de war am. léegi nag il faut qu'on se pose la question ñoom fan lañ jaar c'est des questions à poser. moo tax ma ne journalistes yi am ngeen am ngeen matière il faut aller voir le président il a exécuté exécuter budget loi de finances rectificative amul euh, orientation budgétaire amul mais comment état bi du pour propulser qu'est-ce qui se passe. c'est des par rapport à ces nominations. exactement à nomination nominations, Ablay, lan ngay wax ci côté insécurité bi li ñu gis démb ci Thiès muy double meurtre bo xamanteni ci kaw agresseur bi famille ñooñu ñew réval justice seen bop ak li nga xamanteni moy série d'accidents yi 82 accidents en moins de 4 mois sous R de El Malik Diaye qui avait porté la poisse ci kaw ki nga xamanteni moy Mansour Faye et aujourd'hui à chaque fois que mu def discours dañuy gis ni que la même chose qui revient tey delloowaat nañ ko ko nee nañu même su dee mentoram osé ko débarquer kenn rendre la tablier gor kenn du seppi loxoom ci ndab waaw mais El Malick Ndiaye moom man bi ma koy wax dama ne El Malick Ndiaye ki Ousmane Sonko gën a contre ci waa Pastef la bokk da ko jox ministre bi pour jox ko ko pour mu réussir jox ko jox ko pour mu échec Birame Souleye Diop Ousmane Sonko jox ko ministère pour mu réussir ko daf ko jox ministère pour mu échec li tax Ousmane Sonko taxawoon naan fii ak 6 ku deful ku deful ku deful ku deful euh, dàq la ah. El Malick moom kese moo nekk ci biir Pastef bu Ousmane Sonko waxee waaw te Ousmane Sonko passé unique la gëm. waaw Birame Souleye Diop moo cumulé woon ay poste mhm. biñ faloo lay doog a xam ne sax dina mos premier ministre mu nango doog a nango démissionné. Mhm. léegi nag ñoom ñaar Ousmane Sonko da leen teel xam ne mënu leen xañ poste <laughs> mu jox leen poste yi pour xaar leen ñu sanctionné ko accident yi Ousmane Sonko ba demee xol bi day sedd guy parce que dafa dëgg El Malick Ndiaye échec. parce que ñun xam nañ Sonko xam nañ diggante Sonko ak El Malick Ndiaye xam nañ diggante Sonko ak ak Birame Souleye Diop ma ne xam nañ diggante Sonko ak Birame Souleye Diop El Malick Ndiaye nag àqu mhm. moo ko dal parce que defe naa ne bu sa moromum gor nekkee di gouverner yàlla indi accident nga ne accident bi du yàlla ndogalul Mansour Faye bu tëlee la. Mhm. yaakaar naa dem te Mansour Faye bu tëlee bi fi nekkoon président bi mu àndaloon moom mu ngi yaatal yoon VDN 3 bi jibi yaa ngi ciy jaar gisoo benn rarement nga gis oto bu fa accidenté autour à bi waaw rarement nga gis oto bu fa accidenté diggante Thiès ak Mbour ci yoon yi président Macky Sall defar gisoo temps yaa ngi wax sànq ci ligne ferroviaire yi waaw mais ñun defar nañ terre bi ñu defar terre lu mu waxoon amul lu ñu waxul ci terre bi ak Sénégal kii train du Sénégal ak train du Sénégal train du Sénégal tey gis nga leen ñu defaat déformation génn génnee ko naan voilà El ne waa Pastef ñooy saboté camion ñooy saboté man damay jàkk ne waa Pastef ñoom est que woon ñu ngi ci Sénégal wala dañoo demoon bitim réew man damay toog léeg-léeg ma gis waa Pastef bu ñu waxee dama naan waa ñii ci réew mi lañ nekkoon wala dañoo demoon bitim réew dama jàpp ne ak Sénégal ñoo ñëw dal ci kaw Elmane Ndiaye insécurité bi nag xam nga lan moo ko indi tans ku fekk ambulant di ambulant am na lu président bi fi nekkoon waajaloon mm-hmm. mooy mu ngi defar ay parc industriel te bëgg am ay investisseurs yu fa installé ñu jëlee xale yi nekkoon ci ambulant bi yóbbu foofu jël xale yi nekkoon ci cag-cag yi yóbbu foofu jël borom sareet yi yóbbu foofu nga toog ne yow da ngay ñëw rek waññaaw loxo ñooñu borom sareet yi lu ñu la wax yéen ñëpp seetaan ngeen vidéo bi suñ ñu xañee fi ñuy liggéeyee ñu delluwaat suñuy jaasi dem ci tali bi dem agressé ji borom cag-cag bi nekkoon dakaar nga sonal ko dakaar mu xëyaat teg motoom Dakar dem Thiès bu demee Thiès bu bu xëy am lu mu jox ndeyam ak bàyyam mën na koo delloo ci la xelam njëkkoon mu dem agressé ji waat. kon jàpp naa li am ci réew mi ci seen kaw ndodd la tegu. Mhm. taas ku toroxal presse. Mhm. toroxal secteur immobilier. toroxal meññee yi. Mhm. toroxal ambulance. toroxal borom cek cek. toroxal borom sareet yi toroxal baykat. waaw ñoom kan lañ léegi gis na li ngeen gis ni xam nga ñoom lan lañ seen gouvernement bi plateforme de communication bu ko bu PSE. gisagun nga rek ñoom ñu def lu bees. waaw wala ñu xalaat lu bees wala ñu wax seen initiative xam nga la lañ njëkk a génnee ay pôle. ay pôle waaw ak ligne ferroviaire. Mhm. wax nañ ci semaine. lu tax ñu def ko Sénégal mooy 14 ñu def ko 8 pôles. oui c'était ñu ko defee 8 pôles xam nga lan lañ leen génneel. Mhm. dañ leen génneel fu ñu jaawale ay train te autour de péage jaar fa. jaar fa ñooy leen ñàkk a maîtriser Sénégal mhm. moo tax ngeen génn di wax ay pôle ñu ñu teel ko rocc ci daw mhm. ci la Ousmane Sonko génn ne ñoo ngi doon bëgg présenté seen projet de mhm. liñ présenté moo baaxul dañ ko teel a génnee ci ndab li loolu moo tax ñu teel a daw làqatu ñun teel a daw làqu rocceek wàcc noonu tey ay Malick Ndiaye bisu Dakar dem ñaata lañ ci taal ñoom kenn xamul kenn xamul nu mu toll léegi El Malick Ndiaye bi mu problème transport bi ci ñan la ko réglé Dakar dem dikk Dakar dem dikk El Malick ak oto minibus yi mu fa yóbbu kan moo ko indi Mansour Faye gisoo leen ko bi mu koy réceptionné avant ñu def passation service waaw léegi ku ne woon taalal taalal bis yi taalal lépp ndax bu fi Macky Sall fekk Dakar dem dikk bi nekkoon biir Dakar sax baaxul mu rénové ne Dakar dem dikk ba génne ay bus régional génne ay minibus pour renouveler parc automobile bi léegi yow El Malick bu amoon gàcce du publier sax loolu yow Ila Touba da nga ne takk Euh, tout ça lan moo ci El Malick Ndiaye wala Diomaye Faye wala Ousmane Sonko. rien rien. Touba gi ngay dem tay ba gi dem dégg naa ci ben information moy dégg na ñoom joxe nañ 800 millions Touba. pour sëñ Mountakha def ko ci jumaa tans ñom dañ dañu écouter sama téléphone parce que sama numéro à n'écoute la nek président Macky Sall màggalu Touba. Mhm. daf daan dimbalee kilifa diiné yi nek Touba lu tollu ci 800 millions par 1 milliard de doon jox. 1 milliard 400 tonnes riz lañ daan jënd. Mhm. ak 800 millions séddale ko ci. biir kilifa diine yi ndax gan yi tegu seen kaw dafay diis ndax màggal Tuubaa day def économie loolu yàgg la loolu yàgg la léegi nag comme dañuy déglu naw ñu ko woon def de waaw mais comme xam nañ ne information bi fiite na <laughs> parce que dama juum di ci wax ak nit ci sama appel normal ma jékki-jékki rek gis leen ñu gàddu 800 millions yi mais nee leen des na ne taaw nee leen des na 400 tonnes de riz 400 tonnes de riz 800 matul de dolli leen 400 tonnes de euh, yóbbu ko Tuubaa pour ndox ndox ndox ndox ndox mi doy dama jàpp ne si Bassirou may Faye dañ bëgg yàgg Ousmane Sonko ngeen bàyyi Facebook ak internet indi seen xalaat yu bees président Macky Sall 800 millions la doon séddale def ko ci hôpital yi de. Touba magal gagne yi dañuy bëri. pèlerins yi dañuy bëri kilifa diine yi ñi dal seen kër yi dafa bëri. il faut ñu dimbali leen ci ay condiments yu ñuy lekkee ci biir kër yi. bu ñu daan 800 millions yi dañ koy séddale njabootuk Serigne Touba gépp ak seex yi fa nekk. kenn ku ne fu ñay dal ci yow nga mën am noo dimbandikoo pour nga jàpp leen parce que magal gi gan yi dafay metti boole ci 400 tonnes de riz séddale ko ci kër kilifa diine yi nii lañ doon def ci Touba mm-hmm. après te ba pare 400 tonnes de riz bi dañ koy jël yóbbu ko ci quartier yi gën a néew doole léegi comme da di déglu li président Macky Sall doon def ngeen yem fa xanaa sax mënoon nañoo def 890 sax wala 810 eh. pour mu yokk tuuti pour mu yokk tuuti léegi nañu ngàdd yóbbu ko teg ko ci kanam sëñ Mountakha moo tax yéen man dama leen pièce woon quoi damaa bëggoon bàyyi ba màggal gi jot ñu nag <laughs> ma rëcc ma ko parce li li pare seen terme président Macky Sall 12 ans la def 800 millions 12 ans la def 800 millions 12 ans la def 40 tonnes de riz total 800 millions 12 ans ak 40 tonnes 12 ans Il y président Macky Sall yam ci Touba bokku ci hôpital Cheikhoul Khadim bi fa fek hôpital Cheikhoul Khadim fekk fa ban hôpital Matlaboul Fawzayni bu mu di Macky Sall dugulat ben immeuble bu 6 milliards réfectionné wat hôpital Ndamatou case de santé ak centre de santé yi waa Touba ci kanam dafa mu affecter len fa ay médecins ba paré defat ben tali bo xam dafa jaar biir Touba mu seet conditionné hôpital yi moo tax bi mu demee ñu ne ko jëmbatal ay garab dañ na ko yow diggante ndindi gaawas daara jolof ak ndindi deux voies yi président Macky Sall defar foofu lañ na ko jëmbat fay garab waa Touba ne ko waat diggante hôpital Cheikhoul Khadim ak garage daaru mooy dañ ko doon jàngal ne dëkk bii ki nga remplacé